isra wal miraaj muy dem gi yonent bi demoon bu daganee ñu wax ko mooy gane ji yàlla parce que yàllaa ko invité woon mu ñëw indaale julli loolu dafa doon événement boo xam ne bu yàlla tànnalee suñ fàllu guddi googu suñ fàllu bokk ak julli anniversaire loolu jagleeg suñu borom la. wax ne daana wax ne yonent bi daf ne lay mën a cëpp waaye yonent bi dafa dem ci kaw moom mu wàcc suuf. ñu ñu bokk benn bis subhana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaram ila almasjid alaqsa alladi barakna xawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa alsamiu albasir qul qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun moo tax sunu waajur wu tedd wi bi mu feeñee ñii takki gàllaaj ñii di ñaan sëriñ bi ne déedéet wa anna al fadla bi yadillahi yuutihi man yasha kenn du ko takkal tee yàlla moo ko yoral boppam Bye-bye. du moo xam ne xubbil xadiimi fardal ah kon léegi ki yegg ci ne pour xéewal muy sotti rongooñ ngir sëñ Tuubaa farata la doomi sëñ Tuubaa waaye mos sa bëgg a doon lu ab man de yaakaaruma lan la dul sëñ Tuubaa mii rek kii ci barak bi rek aafiya ndax mu may ma digga mag Cheikh Moustapha dara la ko jëf soo xayma bi ñu waaj la ko tudde maam Cheikh njabootu Serigne Touba bi Serigne Fallou ba ñaanoon yàlla mbooleem doomi Serigne Touba mu tudde leen doom ci àdduna ba dem amu baat ginnaaw la ma Serigne Fallou defal lañu wax waaye kenn def kenn mosu ko dégg kenn amu ko. sëñ bi nee sëñ Touba kenn amu ko. kon nag ñu ngi sant bu baax. El Hadj Fallou Mbacké nee sëñ Touba kenn amu ko. Mm-hmm. lu dul ñëpp am. waaw nañ ci ma jàpp bu baax. Mm-hmm. waaw bisimilah man man lii man lii moom rek moom rek la am. nee El Hadj Fallou nee na amul moom lu dul sëñ Touba. bëgguma leneen. nee bëggul dara lu may sëñ Touba it. bëggul dara lu may sëñ Touba rek. bi defoon ci yonent bi ba tax moom nee na du doom du alal du dara bëgg rasulaay ma gën a lépp Cheikh Abdoul Fadel it loolu la def cofeel googu am diggante ak Serigne Touba ba wax Serigne Touba na ko man de amatuma dara lu may bëgg ci àdduna lu may yow te ndax bëgg googu nu waaye yasdaadu fi kulli xiin maanaam waxtu wu nekk cofeel gi ma am ci yow day yokk saa yu ma xëyee saa yu may tëdd saa yu may dox maa ngi dolliku ak bëgg la ba yegg ci ne nag saf ko du moo an la xubbil xadiimi fardel ara ki yegg ci ne tuur xéewal muy sotti rongooñ ngir sëñ Tuubaa farata la kon loolu wan na ne fa la fa la li ak cofeel di yem doom yi sëñ Tuubaa la waaye mos sa bëgg a doon lut ab taalibe ñun ñëpp dégg nañ ay doom mu wax ne yow sëriñ bi nga xam ne yow sëriñ bu sell bii sëriñ bi ñu yaakaar yow nga xam ne bunte yàlla ya tëju woon yëpp ci yow la ci ko maa ngi lay yëgal ne njureel yéem ma jur jaay naa la ko gannaaw bu ma la ko jaay nañ njëg gi ci war a bàyyi ko nga jox ma ko njëgoo ko defal na ko hadiya nga xam noonu la joxe mbiram Sëriñ Tuubaa mus sa bëgg a doon lu tal bi Sëriñ te moom la doon firndeel ci ay doxinam ak i waxin. sëñ Fallou nag di jëmm joo xam ni liggéeyal sëñ Tuubaa rek ko fi indi mësta dañ di liggéeyal sëñ Tuubaa itam ndax bëgg gum bëgg sëñ Tuubaa ak jigéen gum jigéen sëñ Tuubaa ci saayir ak ci baatin bu dee ci waxeet mooy ci gën a jigéen sëñ Tuubaa ndax mooy woy juróom mooy nijaayam moom sëriñ tubaa ñoo bokk lépp mook sëriñ Touba ba tax na lim am ci sëriñ tubaa wacc mbokk ga jaay njureel ga jënde ko ak taalibe bi mooy doom ji ko jëkk a def ci doomi Serigne Touba yi wax Serigne Touba ne ko jaay naa la sama njureel gi jënde ko taalibe bi Serigne Touba nungul ko ko mu ne ko fabaat naa ko def addiye nekk ci sa biir duma kenn loolu moom rek ma wax Serigne Touba. baat bi may waxit ne nit ñi dañuy wax ne wéetal sëñ bi ak kennal ko fa ci sëñ lu yeggoon kenn mosu fa yegg mas naa wax ne sunu waa ji moom la ñëpp di wër noonu doo nga ko am wasalaam nga xam ne wax ju gàtt la woon joo xam ne ci du gudd du yàgg la wax ñu ne teg mu ne suñu waa ji moom la ñëpp di wër noonu doo nga ko am wasalaam kii nga ah, am kenn amu ko kii nga xam ne kenn ko kenn amu ko sëñ bi ne sëñ Tuubaa kenn ko bu baax Alaaji Fallu Mbàkke ne sëñ Tuubaa kenn amu ko du ñun ñëpp am ah. nañ ci marché jàpp bu baax mm. man de yaakaaruma lenn lu sëñ Tuubaa mii rek kii ci baraag bi rek keroog ba ko Mamadou Diané kii laa def ministre défense mu ne ko kii de du défense défense day ngi ci baraag bii loolu la ko wax keneen ba muy ànd ak Senghor rek dana ku ci jëkkat tudd la géeb sëñ Touba bi rek ma ànd ak yow man sëñ Touba rek la am Lamine dikk mu ganale ko ba ngan gàgg mu jox ji ma Mayoro Fall fanweeri junni ne ko joxal ma ko ne ko maa ko dimbalee ci loolu muy wër may euh, Lamine Gueye te ci posam ne ko bu ne ko damaa ànd ak Youssou Mbargane ak Adama Lo waaw na leen ñu teg ci ay bi Senghor dikk mu ñëw toog ba ñu añee bay war a noppi mu génne waat loolu jox ko ne ko yottal ma sengoor sengoor xool amulo bi ne ko lii lu mu mu ne ko sëñ bi la ko jox la koo dimbalee mu ne ko baax ba muy tàggu sëñ bi mu génne enveloppe bi ne ko sëriñ bi teraanga di su ko dellu waaye nag lii defal ma ko ci seen liggéey jumaa ji te bu ma gañee yi danaa leen ci jàppale sëñ bi ne ko indi sa loxo man ànd na ma yow man liggéey bi ku ko tudd rek am na ma ak yow léegi ko booleeg moom dara it mosu koo ñor nag lu dul liggéeyub sëñ Tuubaa bi soxlawul dara bëggul dara liggéey bi rek ko ñor nee na woon liggéey bi ak dëkkam bi ak bisam bi yett yi rek a ma ñor ndax yooyu la ko sëñ Tuubaa dénkoon. jumaa ji noppee tam dugg ci biir barabu sëñ bi di ko wër da caa bokk waxi wolof jum doon wax moom sëñ Fallu da doon wër barab bi naan ko Mbàkke fii lañ toll tollal la fi. buñ ko weesoo la ko ndax loo jurut amut kon loolu day day wone ak bëggam Serigne Touba ndax loolu loolu bokk na ci li mu doon wëree barab lu ko lu ko waaye masa naxi Serigne Touba mu nangu donte wóor na ko li ngay wax du dëgg waaye tudd nga ci Serigne Touba rek la ngay wax da da koy nangu ndax day am day xam ay na xam di ca tàbbi aswaay dafa wut am imprimerie dem ba desi ci téeméeri junni dikk ci moom bind ko leetar ne ko maa ngi lay nuyu di la sant te di la yaakaar sama soxla si mennum yow laa ci yaakaar mennum yow laa yaakaar ci ne boo ko amee su ma la ko waxee danga ko faj dama am soxla si téeméeri junni ndax damay defu imprimerie biñ dikkee di naan si attaay ci suba gi sëñ bi wone lettre bi ñu ne ñoom daal ñu tàmbali waxtaan ñu ñoom daal dañuy dégg lii nangam ak nangam sëñ bi ne déedéet danaa ko jox de waaw yii de du ma ëpp fit xanaa da ngeen déggu li wax. yow rek laa yaakaar ci ne am nga ko yow rek laa yaakaar ci ne am nga xol bu ko mën a joxe te ma am ko te am xol boobu dama koy jox kat waaw daal di wëlbatiku daal ko koy jox nga xam ne dama ko ne yow rek ci yow laa gis kuy xamee na xam di ca tab bi waaw doo jéggi sa menn yeer suñ fa du jéggi menn yeeram xam nañ na xam it nangu cee tab bi. lu Sëñ Tuubaa ma sa bëgg. Serigne Fallou nga ci te daawul def dara lu Sëñ Tuubaa lu Sëñ Tuubaa santaane wu ak taalibe mu fonk Sëñ Tuubaa mas naa wax fii ci kër ci këram gi sëñ Aliou Ndiaye Guèye la ko waxoon boobu dafa julli ba sëlmal daan na ko boo gisee du ma fonk dara borom baraag bee tax daan na ko fii ba makka bu téere yi lakkoon ci jamono ñett ko mën a sopp yeesalaat sëñ mut dem ca sëñ mut buusa ca Gede muy bàyyi sëñ maam buusa ak sëñ mut dem ca njaarim ak nun ñuy toog waaye nun jaay nañ lépp jënde ko borom baraag xam na kon wane na ne bu dee xam-xam moo fi raw waaye jaay na ko jënde ko Cheikhul Khadim mooy la ko gënaloon ci lépp lu mënoon a doon ñaari doomi soxna yi ñëwoon kenn ku ne jóge fi bara ne ko ñun kat daa gént sëñ kii ne fi ki ne ñu gént sëñ Tuubaa ne na ku ne na nga dem ci sëñ Fallu mu jox la nangam kenn ku nekk jox la ba bañ bañ jóg dem mën leen xee ñu gees mën leen gis leen kenn kat kon danaa xam ay na xam ba na fi na ko caataab lépp mooy bàyyeegum ba bàyyee bopp sëñ Tuubaa ak jox ko ko jox léppam man mii di wax ak yow de jaar naa ceeg moom ay yoon ndax xëyee naa daar musi dikk ne damaa soxla ñetti junni bi ma dikkee ma toog ba ñu woote ndékki li ma ñëw ñu indi ndékki lii ma bañ a lekk mu xëy leetaay yi ma bañ a naan mu ne ma topp si lu mu doon mu ne ko dama gént ci sëñ Tuubaa bii mu ne ma boo demee ci sëñ Fallu na la jox ñetti junni mu daal di lam bi daldi di génne ñetti junni jox ma sëñ Ousmane rahmatullahi alayhi ne ko ah yow busu bu subaa ñëpp danañu gént mu ne ko Ousmane yow mii laay tontu. dafa am soo xam ne danga maanaam moom nga jëkk am ci taalibe moom nga jëkk def lii moom nga jëkk def laa te dafa tumu ranke waa kër mi tumu ranke te daal sonn na te ba mu ànd ak yow dama lay wax nag bis bisu tey jii la tax asuwaay daa jóge njaarim dikk ne ma sëñ Tuubaa nee nga jox ma faxay pepp ma woo ko mu ñëw ne ma ak ah, kii di gisul sëñ Tuubaa daal di yàq sam xel ñemeetuma bàyyi waa ji te kii yàq na sam xel ma téye ko ñetti fan dem njaarim naka ma jox sëñ bi loxo rek mu ne ma baa ka ma la booleen jox nga ko faxaja man naka nakal sëñ bi bàyyi sama loxo dem ma toog fa ba sëñ bi julli ji takkusaan ba dikk fekkaat ma fa ne ma kaay dellu ëllëg lu ñu la naxa ci man nanga ko nangu te xam ne kooku naxu la nee na ba ma dikkee ma fekk fi ñu jox ma fi mbaam ma jox ko faxay pepp ja ak mbaam ma ne ko boole naa ci mbaam mi demal daan koo ko ne yow génnal sama kër demal bëri sa këru bopp mu ne ma lee tax boo bëggee sëñ bi lépp sëñ bi ngay bëgg lépp sëñ bi rek ngay bëgg sëñ Fallu noonu la meloon ci njabootu Serigne Touba gi ñëpp kenn ku nekk joxoon na la cër joxoon la wàccuwaay xoolee la Serigne Touba maanaam bu la gisee fàtte boppam gis sëñ Touba ci yow loola it yóbbee na ko it ba waxuma la njabootu Serigne Touba waaye mboolem mag ñi toppoon Serigne Touba ñëpp boo xoolee seen diggante yi noonu la doxee woon moom Serigne Fadil nga xam ne amul lenn lu muy bëgg wala lu muy taxaw lu may luy tax njabootu Serigne Touba gi rek lañ bëgg lépp ñu am njabootu Serigne sëñ Fallu da leen a fonkoon a fonk ba ñaanoon yàlla mbooleem doomi Serigne Touba yi mu tudde leen doom bi mu ay tudd ay doom ba egsi ci sëñ Basiiru mënatut a fexe ba genn góor gane jamono ci kër gi benn bis mu yónnee woolu sëñ Basiiru bi sëñ Basiiru ñëwee mu woo sama baay mi ab jarbaatam nga xam moom ndeyam bokk ndey ak baay ne ko Basiiru dama am yéene tudd tudde leen yéen ay doom baay waaye bi ma egsee ci yow fii ne kenn kenn gëneetu fi jamono di góor dama bëgg mataar mii nga xam ne sama jarbaat la nga yóbbu ko tayle naa la ko ba keroog am Basiiru di am ci kër gi sama baay nee am naa fa lu mat at wala ñaari at kër sëñ Basiiru benn bi soxna Faati Kebe way juru sëñ Basiirum sëñ Fallu mii gane ja am gan sëñ na gan gi lu mu doon waay ñu ne ko gan gi de góor la mu daane nañ ma seetali sëñ Basiiru fu mën a nekk ci àdduna ñu wool ma ko sama bàyyi nee na ñu ñëw daaru minam fekkuñ fi sëñ Basiiru ñu ne leen ma nga jëmoon euh, dëkk bi ci yoonu kolobaan bi tiib ñu dem tiib ñu ne leen sëñ Basiiru xëy na fi dem Kawlax ndaw la daal di jàll Kawlax ba mu dee fekk fa sëñ Basiiru ne ko sëñ Fallou lay woo fekk sama bàyyi nee na boobu sëñ Basiiru ma nga ma bàyyi tiib nee na bi mu egsee mu ne ko ana sama mataar ma waaye Basiiru am na ci kër gi ana sama mataar ma daan neel soxna si gan gi ci kër gi na ko indi nee na way juru sëñ basum sëñ fàllu mii tey dem yor gan gi muy liir bu tuuti bu amagul aw tur bi mu egsee ba sukk ci kanamam toog sëñ fàllu dafa yëkkati liir bi daal di koy teg ci loxoy sëñ Basiiru ne ko waaye Basiiru ngoog delloo ma sama mataar kon xam ne sama bàyyi sëñ fàllu da koo tayle woon sëñ Basiiru ba sëñ Basiiru Fatick bi muy gane jamono tey ñi nga xam ne bokk ñu Sëriñ Tuubaa kenn ko nekk dara sàkku Sëriñ Tuubaa ci yow eh, warmaal ko ba ba daw jaar ci turu borom borom barak beeg ku baaxee ku tedd ki la daa wax fab doom nag teg ci fonk leen def leen seen doomi sëriñ ku mujj gis yaa koy gënal boppam muy góor nag muy jigéen Moutala ñëw na ne ko dama bëgg oto mu ne ko ah, benn bii ma yor képp dayee fi ne fekk sëñ Modou Bousso Dieng wàcce na ab 404 nu fanaan ci kër gi mu ne nan dem ma sëñ bi léemul ko biñ dikkee di ko léemalu sëñ bi ne ko sama doomi sëriñ bii de daa bëgg fas yow ngay léemalu si aw fas daa bëgg nga jox ma ko de ma jox ko ko sëñ bi ne ko ah bu ñu mënee dimbali maag seex mi mu yóbbu lu ba xaayira rek waaw sëñ Moussa ne waaw kon kay bu ngeen dem rek ma boole leen ak bu <laughs> nu daal di dikk wàcc bu daal taal oto bi dem nu toog ni ciw amul oto bu ndoxeti te it noonu la meloon nag ci waa kër sëñ Touba yi sama doomi sëriñ yi rek lay wax xam ne kenn yëmu ko kenn agsiwu ko fii ci taali bi lu ne tagg na ko sëñ bi lu ne wax na ko ne nag li ma lay tagg ak li ma lay wax lépp lépp lu mu ci mën di doon rek bu dee tuyaaba defaat naa ko addee ci yow lu ma sa boroom na ma jox rek defaat naa ko addee ci yow nee na ma it seex dama bindi kaamil ba xooge te bëggoon barke taxut bëggoon àgg ci sama borom moo taxoon ma ko te sëñ Touba defal na ma. moo ko Cheikh Moustapha seen diggante moom dafa doy waar ndax yaakaar naa ne seen diggante ci wàllug saayir seen diggante eh, seen magante bu sul juróom-benn weer wala juróom-ñaari weer waaye sëñ sëñ Touba dana boole ci seen lépp la boole woon ku ci ne mu wax la ne la kii kii lii la doon coow kii nii la doon coow ku ci nekk eh, xam la nga xam ne moom la sëñ moom sëñ Touba boole woon moom ñu ñu sàmm ko eh, Cheikh Mourou Fade nettali na ma ni ma. xasida gi gi ñuy wax euh, wakaa naq na leen na nusul mu'minin neen sëñ bi doon woo maak Cheikh Moustapha ca Njaareem nu bokk toog nii muy mu jamoo xasaay xasida googu moom nun baat wax nu wax ba wax ba ca topp ba ñàkk ci ba yi di jokkaloo yooyu afqa salamal karimi samadi ala nabi wasilati muhammadi ala nabi wasilati muhammadi afqa salamal karimi samadi neen moom lu mu déenu ñaar daje suñu bopp déenu kon diggam ak Cheikh Moustapha dara fi Eh, lam dee nag yàlla dogal na sëñ bi mu dafa doon sama gannaaw bu doon sama sëriñ da doon sama xarit mos naa bés ma di ma di ko jéem a laaj waaye dina nu mu ko sëriñ Tuubaa nee na kasu rajabin akramani kasu rajab daf maa teral kasu rajab nee na ci lañ ko maye alxuraan te sëriñ tubaa nee na alxuraan moo koy gunge ba àjjana li sëñ Fallou am ci kasu rajab benn góor yàlla amu ko ci ni niñ ko koy wooteele amul fenn fuñ ko koy wooteele kasu rajab bi nag sëñ Fallou kar wu ko defu ko bis bis bi moo jur sëñ Fallou al isra wal mihraj la li mu jox yàlla li mu jox yonent bi sallallahu lépp ci ko suuf la ko joxe ba des julli juróom julli juróom rek la ko ñaane yóbbu ko jox ko julli juróom foo la wax subhaana si asra bi abdi laylan min al masjid al haram ila al masjid al aqsa si baarana awlahu nuriyu min ayatina innahu sami basir moom mi wax ca warañ mi ne ko waaw ila abdi maa waxa maa kasabal fa atumara afatuma doon wala maa yara wax yi la ko la mu koy yooyu te booba dem na ba seen diggante mel na xaaba xaw see diggante kocc ak xala maa diggante bi ni jegee ëpp na loolu sax na yàlla kenn gu ci waaye yàlla am na fi ñu laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko noo gisee sa borom mu ne raaytu rabbi ala suurati saab gis naa sama borom mu ne bi xambaane te du tee bu yàlla bisu keroo bi nga xamee ne sallallahu alayhi wasallam yàlla rañaan na ko yóbbu ko am na ku mu rañaane yóbbu gu si yóbbu gu taxti sara te même yàlla ji la même heure bi la même invitation la dégg loolu kon bis bi julli yëpp ko war a màggal du wàgg bayere bi rek ak Sëñ Tuubaa moom moom la yàlla jox lépp moo tax bis bu nekk rek bis bi xew bi rek am lu xew loo xam ne kenn Sëñ Tuubaa dana ci feeñ ba ñu wàcc ba ko def gi mu gent ndax yàlla da ko da ko waxoon ne dañ maa rafala islam te sir ma sabati di Mustafa yi ndax naa yémin am na asan ma di feeñ desam ci moom la ko ku doon alxuraan doon yonent bi aleyhi lépp luy rek euh, sama borom dama teg ci euh, ba tax na lépp daanaka lislaam du du ràpp du rafle ndax suñu tuwaay dañu fekkee dañu fekk kenn rek koo xam ne ci njabootu lay doon bis ba ñu ko fàtte ñu jàpp ne kooka tax ñu fàtte ko te fekk bis ba du jiitu loola. bis bi daal bu masaanaam danañu ànd ak moom dem Darou Salaam yandu fa fanaan fa suñ Modou Mamoun suñu xëy fa xëyee jaar kër sëñ Afé Niang mu defar dàkkare ndékki nu ndékkee ko su nu ci biir kër gi mu yewi ñëpp ñu dem ñuy dem ba yàgg benn bis sëñ Modou Bousso Dieng woolu ma ñëw mu ne ma damaa bëgg a dem ci sëñ bi ndax dama ko bëgg a wutal bis te bëgg koo waxtaanee moom ba juboo ci ak moom bi mu ñëwee mu wax ko sëriñ bi ne ko man de dama laa bëggoon a wutal bis dama laa bëggoon a wutal bis te ma ne woon bala ma koo def ma wax ceeg yow sëñ bi ne ko bis boo ko bëgg def mu ne ko kasu rajab bii nga feeñee sëñ Fallu ne ko ànd naa ci nga xam ne sëñ Moodu moo créé màggalu kasu rajab boobu nga xam ne mooy guddik laylatu kasu rajab mu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru euh, euh, euh, rajab Cheikh Modou Fadel ci la feeñ noonu mu daan waxee ca xoromam sa daanañ wax ne daana wax ne yonent bi daf ne lay mën a cëpp maa yonent bi dafa dem ci kaw moom mu wàcc ci suuf ñu ñu bokk benn bis kon day mel ni moom bisam mooy bisub julli bisam mooy bisub yonente bi sallallahu alayhi wa dañuy faral di wax it ne daje googu bisub sëriñ Fallou daje ak bis bi julli wàccee ak bis bi julli farat nekkee farata daje googu mu daje yàlla defu ko rek noonu du coïncidence li ñuy wax euh, euh, euh, sot fa dafa am noonu rek waaye yàlla daf koo namm am na lu mu namm ci biir ndax sëriñ Fallou ba muy feeñ ci guddi googu kenn xamutoon ndax koo kuy feeñ ci guddi googu dana dem ba àgg ci jëmmi jamono mu taxawal jumaa ju toll ni jii ñuy seen gën mag ci Afrique wala gën a rëy rëy ci Afrique wala gën a rafet ci Afrique ca jamono yam koy tabax kon kenn xamutoon ne jamono yooyu moom mu feeñ ci guddi googu ñu farataal julli dana dem ba taxawal sunu borom jàkka ju toll noonu nga xam ne ca la ñuy joxee julli loolu yaakaar na nekkutoon loo xam ne yàlla daf koo defoon noonu rek waaye am na lu mu ca namoon te lam ca namoon it ñëpp teg nañ ca seen bët fadlullaahi dafa rëy ndax alquran lu ne wax lu ne mu digle ko lu ne mu tere ko lu ne mu dige ko waaye dafa mujj wax ne li am njëriñ addina ak alaxira moo di fadlullahi wa rahmatuhu qul qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun moo tax sunu waajur wu tedd wi bi mu feeñee ñii takki gàllaaj ñii di ñaan sëriñ bi ne déedéet wa anna al fadla bi yadillahi yuutihi man yasha

maa taarixayam ba doona lay boole tagg ma fi ndax mu may ma ci dara jaam ngeen li weesu xayma soxlawul dara bëggul dara liggéey bi rekk ko ñor nee na woon liggéey bi ak dëkkam bi ak bisam bi yett yi rek a ma ñor ndax yooyu la ko sëñ Tuubaa dénkoon. sëñ Tuubaa di mu dana bëgg ci àdduna mooy jumaa ji te waxoon na ko ne na seen loxo damm moo Cheikh Modou Sow sama sàmm ñoom nee na seen loxo damm mm, boo ko defut ay ay bindeef ñëw ne fi dama sàkku ci man malaayka yi sàkku ko ci man jinne yi sàkku man ay yeneen bindeef boo ko defut dañ ko def te yéen laa ko gën a yéen ñoom ñu digg ñoo dikk sàkku ci man mu ne am naa njaboot de sëkk naa sàkku ci moom kon loolu bokk ci réalisé ci àdduna maanaam ba ko defee nag daal di wax ne bi ma tàmbalee yéen ñëpp ngeen maase ñëw jàppale ma ko ba li sëñ Tuubaa bëggoon am na ndax bi may tàmbalee jumaa ji juróom fukki junni la ma yàlla jox mën naa ko sànni ci xuba bi fu mu yem ne mbaa ko tàmbalee yéen ñëpp ngeen ñëw jàppale ma daan na nag a ci des ginnaaw liggéey sëñ Tuubaa bi beneen baat du ci tege beneen beneen baat buy liggéeylu lu liggéey sëñ Tuubaa du ci tege loolu tax man nga daal man nag daal ne wàccu ma nag bay wàcc wàccu ma bay wàcce ku sol nag yëg ko waaye man wàccu ma bay wàcce xanaa bu liggéey bi àgg bu liggéey bi àggee ne kenn ku li nga bëgg am keroog ba ñuy gor tubaab tubaab bogo it maag sëriñ Modou nu ànd dem wëri gor bi ba ma dikkee mu ne ma fu ñu toll ma ne ko ah man de dama doon def listixaar mu ne maa ma ne ko man de damaa yoroon ñetti cartouche bëgg ci juróom benn rab ma ne bu ñu ci amee juróom benn rab daal Euh, euh, tool yi dana nangu dana barke li nga ci bëgg yi da nga am bu fekkee ne nag ñetti rab rekk la moom góor geeg bañ gee goroyam yàlla dogal na nag am naa ci juróom benn rab waaye nag am naa xam-xamu ci ne jinne ji daal li mu wax mooy nee na kii àggale liggéeyam Sëñ Tuubaa bi fii lu koy jële waaw mu ne ma keroog ba ma ko tàmbalee dama ne bu fekkee ne liggéey bi sëñ Tuubaa bee tax lu ma fi ji yàlla na mel na xorom waaw loolu la wax loolu la ma wax keroog ne ma loolu laa wax ma a ko ah léeg mel na xorom léeg moom bu soobee yàlla ci ngay àggalee jumaa ji da ko ci àggalee ba julli ko de keroog la ma jox landerweer boobu wax itam liggéey bii xëy moom la liggéey muy jumaa ji daanañu wax ci ëllëg toog naa booba tu tànk laa waaye batiwuma ko muy woo dong yëpp tër bi yëpp di wax ni lii ngeen di liggéey de su ma ci naree jële benn dërëm jëme ko fenn fu dul ci jumaa ji lu ngeen bay yàlla mel ni xorom dalal waat saa si nag li ma ciy jublu damay bañ ku ma yey liggéey sëñ Tuubaa nii mu toll ma def ko ku ne yëguma ko ne loolu tax ma def saa si bi jumaa ji demee ba taxawit ah ba soppi liggéey am tamit moom sunu maam Cheikh Ibra ah moom moom moom lu tuddee làmp Fall fu waaye toll di ko séen sëñ Fallou Mbacke ko ko tuddee te booba nun ñi noo ngi ci daara ji wàccegunu muy 1963 bi jumaa ji eggee la ko tudde maam Cheikh Ibrahima Fall nun nag loolu danoo doy sëkk doy nañu ab sëkk doy nañu tiitar lépp sëñ Fallou ndax lu toll ni jumaa ji dàqoo faa julli dàqoo faa woor ñu tuddee la ko loolu exemple la bu wér ku nekk ku daa ñaanal nit danga ko daa yàlla danga ko naa yàlla na nga fekkee matuk jumaa ji ndax dañoo defoon ne jumaa ji du mat mukk ba buñ ko daa ñaanal sax moom ci boppam dañ ko naan sëñ Fallu yàlla na nga fekke matuk jumaa ji boo ñaanal nit koo fonk dañ ko naan yàlla na nga fekke jumaa ji ndax booba defar nañ jumaa ji du mat mukk bi jumaa ji àggee it ba julli ko ba àggale julli gu jëkk dafa bëgg lool keroog lu ne joxe na ko maye nay oto maye nay mbubb maye na xaalis maye na dugub maye na ceeb daa man daal ginnaaw maa àggale bëggu sëñ bii waratuma soxlaate dara ndax jumaam ji dëkkam bi bisam bi rek lam daal di xotti lu mbedd yi indi làmp yi mu dem ba ndindi keroog ba jumaa ji sottee 1963 ñu indi ko dafa waxoon ne euh, bind naa leen kaamil tabax naa leen jumaa jumaa jàngook daal di daal di wax sëñ bu sa élimaan yàlla yàlla dool leeram nekkoon ko nañ fay jàngal xuraan cooju la ñu buddi sëñ as moom sëñ am suuf jaxate moo def jàng xam ba léegi jàngale xam moom ma ngi ca alxuraan moom ku xam na ni eh, daari kaamil eh, eh, lañ fa jàng si kay kaamil subaa ngoon ak subaa faj lépp ma ngi sax ba fi nekk daf na kama xat kunta taamul yaa xadima bi unita fi daari naimi fakun fii nicmatin abadan muqima mu aafan murtadan sayxal xadimi fala sant sëriñ bu baax a baax màggalu eh, gu mag yi ñuy wax màggal tubaa gi Cheikh Modou Fadal moo ko njëkk a woote fii ci Touba bu buñ la ba mu wootewul màggal gi boobu Touba dañ ko defoon rek ay eh, ay ay barab yoo xam ne ku wàccub léegi jubul la foofa eh, waaye boobu wax dëgg yàlla gannaaw bëgg-bëggu sëñ Touba nga xam ne moom sëñ Touba xam ne ni dëkk bara mel waaye nag la la la tax nit ñi gën di ci sawar moo di di fekki màggal Touba gi. bis bii mu daan ko yóbbu foo xam ne kenn mësu ko faa yóbbu ne nañ koy def bisub daje ndax nee na barke daa mën a sànq nit. te buñ ko deful bis boobu kilifa yi duñ ci sant. looloo taxoon bis bu njëkk bi mu wax ak taalibe yi yewe leen bi ci tegu mu wax ak gouvernement bi bi ci tegu mu la dajale xalifa yépp ñu doog kenn ku la gisoon teg sa morom loxo saafoonteeg moom yendoo waxtaan ba julli timis ñu soog a loolu la daan def loolu nag dañoo jekki rek bàyyi ñëpp sax seen addiya lañ ko daan joxe bis boobu mu leen di woo kenn ku indi sa addiya ku ne boo dikkee foofu nga joxee sa addiya

xalifatum Seex ne war na lay liggéeyal bu ko mënut wuti ku lay liggéeyal yow nag dara warula ci kenn sëñ jëree ko xoon sëñ Fallu ci njaareem am nañu ko fekkee woon aliye siyaare ji ko sëñ Omar jëmm nijaayam bokk ca bañ ko siyaare ba noppi mu tëdd ci piliyaan bi ba yàgg mu wëlbatikuwaat jaaxaan fable faa gi teg ci teg ci jëbi ba yàgg muy dikkaat ak àll Omar jëmm nijaayi lenqee ma waaye nii ko sax Omar jëm ndax tàngoor yi daan ni ko Omar jëm mu ne ko Mbàkke mu ne ko déggoo coow la ca barsàq mu ne ko mu ne ko Omar waa barsàq ngay soow rek seen coow lu bari la mu ko Mbàkke la ñuy mu ne ko seen coow lu bari la muy bari bari bari bari ba gën a del si ba liggéeyal ma rek moo waral seen coow la loolu kon dey wane ci ram moo tax am na ko wax ne sëñ Fallou ko man waddahu odda min al axyaari wa man jafaahu odda bil axyaari nee na saa yoo ko bëggee mën ngaa yëkkat sa loxo wax na ci ñu baax ña laa bokk waaye boo ko wanee ginnaaw nag yaay ka gën a kàccoore bokk ci ci ña gën a saay-saay boo wanee ginnaaw sëriñ Fadil ñi nekk ay ndaw sax gis nañ image ci Cheikh Abdoul Fadal foo xool yaa ngi seen téere baa ngi mu ŋàbb ci loxoom di jàng loolu dafa caa doon lu sëriñ Tuubaa la ko waykat bi ne ko wariste sa say fi ilmin wa maarifatin man zal si laa yuri fii ka warisahu yaa doon lu sëriñ Tuubaa yow ci wilaayatu waaye yaa ko doon ci xam yàlla bu wér a wér sëñ Fallu waxoon te waxoon ko kër sëñ Omar Bousso daf ne man da feeg yéen a ngi may gis doomi sëñ Tuubaa eh, yéen a ngi gis sëñ waxtu bu ngeen ma noppee gis nag sëñ doomi sëñ Touba ngeen waaye li fi yéen a ngi jàkkaarloo man rek yéen gisee ak sëñ Touba. ci buntu kër bi fii ci fii ci penku jumaa ji jullee na fi takku ta tabaski daal na ne yéen a yéen a yawa yawa yawa man dëgg maa ngi ni maay sëñ Touba feeg yéen ngi may gis de yéen a ngi gis sëñ Touba waaye bu ngeen bu ngeen ma noppee nag doomi sëñ Touba ngeen deete gis sëñ Touba defut koy am doom waaye ñu jaar ci moom tuddoo ay doom muy góor ñi muy jigéen ñi kenn ku ne ab saaba ga da ngaa nekk sëpp yi sëñ bi ñëw ca pied ba dina seet nga topp ko foofee lañ ko toppee man mii nag pied ba mu ma fekk daa fees dara mu ne ndax mos danaa dem adduna tini ju doomi aadama ya ma ne ko soo demee ba toog ba danaa toog yow fee danaa toog yow wéttile la waaye su ma koy waxutal ne ko naa toog yow wéttile la kon du gis ci adduna yi lu ko jëral dikk loolu de wax na ko. ki nga xam ne fi mu nekk ci Serigne Touba kenn nekku fa te kenn du ko fa fekk ndax mas naa am luñ koy fexeel ñu yàq ko bañ ko fexeele bañ yàq ko. yàlla àtte mag mi ma ko doon nettali nee na ma bi sëriñ Touba di ñëw ci mbooloo mi soluti daal ci ki ma nettali laay wax de ndax tàng gu Serigne Touba teel tàng moom ci boppam mu daal di wax ni man day dikk ca mag ña ne man day damaa jaaxle ñu ko am ah, mbàkke lu mu doon mu ne damaa seet seet seet luñ bañee moom du fàlli loo xaw ma ko man de xaw ma luñ bañee moom du fàllu sëñ ma Samba Diop Saam moo ko ni mbàkke moom du fàllu day ko ko bañ yow la bañ ndax yaay moom mooy yow. mun ne ko sikk wudde sikk wudde kon de ana ni may def Mamadou Samb Mamadou Samba xa Mamadou Samba Diop xam nga nu def kon li ne ci man dinaa ko def Sëñ Fall dinaa ko def Mamadou Fadel mu jeex tàkk soxo jit ci moom ma yàkkali ko def ko ci moom ba mu jeex tàkk maay bàyyi maay nijaayam. gis nga Sëñ Fall li mu defoon Sëñ Tuubaa rek noonu la ko nit ñëpp def fi ne ñi ko bëgg te xamuñu ko ñoo gën a bari ñi ñi ko xam. génération bi yi nga xam ne Sëñ Fall ba mu fi bàyyi koog léegi léegi juróom fukki at mat na ah wala motul li muy manqué bariwul ah te téewul tey jii ndaw ñii mujj a judd koo wax mu ne barke sëñ Fallu sëñ Fallu laa xam moom laa am awma kenn ku sëñ Fallu Mbàkke dama ko bëgg ci sama xol bi yëmalu ko kenn kenn kenn kenn ci kaw suuf moom rek moom laa wóolu Mbàkke ma jàqee moom laay woo su ma amee moom laay woo sëñ Fallou man dama ko mas a bëgg ba may doon xale tout tànk ba nii ma toll nii sëñ Fallou rek laay bëggee. sëñ Fallou yemalu ma ko leen dama koo bëgg ci sama xol bi ba yemalu ko leen. ku ne am nga sëriñ waaye ku jàq ku ne sëñ Fallou ngay woo. lu ko waral mooy que ma tuddin tuddaan dafa jeexoon takk ci sëriñ Tuubaa bëgguma ci di doom bëgguma ci di Cheikh damay di taalibe bu ne ci looloo tax nag ku làmb ci Bamba ji dajaale Cheikh Abdou Fall. ne. kon moom fii a ba. a doon bàyyi ba. ndax amul bàyyi ndax amul bàyyi. du taalibe bëgg Cheikh yi itam lu mu am doy na ab taalibe rek man du ma dara maa ngi fi rek. mais moom moom du dara mooy di taalibu sëñ Tuubaa eh, eh, rek. di eh, wax sax taalibu mi ngi fi rek. maa ngi fi rek bu ñuy sëñ bu ñuy sëñ Tuubaa rek mu dugg ci biir. waaw mu bu ñuy sëñ Tuubaa mu dugg ci biir sëñ Tuubaa rek. loolu rek la. ab taalibe rek. lii du taalibe sax moom daa dugg ci biir sëñ Tuubaa rek. dafa dugg rek sëñ Tuubaa di sëñ Tuubaa rek. foofu daa ne. dafa dugg sëñ Tuubaa di sëñ Tuubaa rek. yéen a ngi nekk foofu yi. yéen a ngi nekk foofu yi. da ngay nekk foofu yi. sëñ Fallu mu daa yemaliwut ak sëñ bi dara wax nañu ko benn bis mu toog ñu indi reer bi mu reer ba àggale ma fabal teg foofu boobu sëñ Modou Aminta Fall fi nekk ak sëñ Modou bu Niang ma teg ko ci seen diggante fab raxasu mi teg ko di def di di jox pot bi sëñ Fallu ngir mu gàllandi ko Modou Aminta yekk euh, fab ndab la yekk ko ci kaala gi mu yoroon naan raxasuma fab ko lum raxasuma ëmbaali ko yóbbu ko dem tàggoowut Modou Aminta Fall sëñ bi sëñ ma sëñ bi reer ba dem na di sëñ du fekk ma nga ci gannaaw sëñ Modou demee fu mu dem ma ne ko ah sëñ Modou demee te yóbbu na ko de ak këllub raxasu ba naan na raxasu ma yóbbu na këll ba yóbbu na cere jaag ñeex ma lépp dem na sëñ bi ne ma nii de la Cheikh Ibra Fall def ba raw ñëpp waaw lee tax ñu raw nit ñi waaw taalibi gu métti rek day moo tax ñu raw nit ñi lenn nag waaw du luñ jàng du dara ak taalibi képp la ñu rawee nit ñi waa ji ah dañoon dañ da ngeen da ngeen ko nanguwut te ñoom ñu nangu ko rek lii la wax keroog. li mu daan mooy. ñaar laa ñee ci àdduna ñaar laa ci ñee mooy suuf laa ñee ci muñ maam Cheikh Ibra Fall laa ñee ci ak taalube loolu moom suñ Fall wax nañu ko ba tey ñu di ko dégg. kenn ku ne xamoon na Cheikh Abdoul Fadal ni mu meloon ci digganteem ak borom ba taxoon mu yóbbee ko yërmande ju yaatu ji nga xam ne man lépp am sañ waaye bàyyi xel boromam ci ragal gi mu yàlla te ragal yàlla ñaari jéego rek la am lu mu la digal nga def ko lu mu la tere nga bàyyi ko te mboolem yi yàlla digle na mooy moo moo l'islam yëpp sëñ Fallou matal na yëpp ponk diine yëpp matal na ko tabax juma aj makka dafa def lépp bind alxuraan kon matal na ko. Euh, ki nga xam ne moo njëkkee toog ci réew mi di président de la République ñoo Senghor doon julit waaye sëñ Fallou xamul loolu li li sëñ Tuubaa xam la xam rek li sëñ Tuubaa xam mooy la mooy mooy doomu aadama bi def sëñ Tuubaa yàlla dafa wax ñeent ñeenti wara dafa am ci àdduna rabul wara dafa am mooy subhaanahu wa taala xayru wara am mooy sallallahu alayhi wa sallam xaadimu xayru wara mooy rabul wara moom ak xaadim ak sayidi wara dañoo jël dañoo jël yi ngeen a bëgg seen àll ñoom jox ko Sëriñ Tuubaa hmm? yooyu mooy lan simaamul wara xasri sadallaahi fi yadi maaruntu mi man maari xaaj bi an jël su bindee fi jox ko Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa bi ko joxee loolu maanaam dënd bu yaatu ak bëgg gi bëgg yàlla subhaanahu wa la xam ne yàlla euh, bindee fi ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy alalam ñooy njabootam mu na yàlla irham jafi wara kon loolu da ko doon Sëriñ Tuubaa rek moom Sëriñ Tuubaa kenn ku julli rek def na la boppam kuy bindeef rek dafa Sëriñ Fall bëgg na la yaata na la maa ngi fàttaliku bis ku ñu wax Alaaji Maalik Sekk rahmatullahi alayhi maa ci mag ñu nekk ci rajo Dakar la bokkoon di ma sotee bis ñu waxtaan ba ñu nuyu de moom mu ne ma yéen am ngeen sag waaye am ngeen sas maa ko sag bi de yaakaar naa sas yu defe naa moo ëpp dool sag bi mu ne ma waaw maa mën naa a wax yow a a mu ne ma Sëriñ Fall dafa dafa sol perkaal dugg ci bërigub tiir génn su bu ko ah, loolu ajmaa moom loolu moom jaaxal na ma loolu xel ko nangu mu ne ah kay laaj ma maa ko ah, laaj naa la kon loolu loolu lu mën a mooy nekk ci àdduna ba dem amu bar ginnaaw la ma suñu fal defal lañ wax waaye la suñu fal def ko dégg kon def ak defal laa bokkut moom lu ñaaw rek lay doon lu baax lay te loolu ko doon Sëriñ Tuubaa rek Sëriñ Tuubaa mooy xeet bi ne fii àdduna ak alaaxira kon boo doon na ci moom loolu dañuy sant yàlla ci loolu kon. doonal ko bari baatin doonal ko mën a dimbalee doom ku yërëm doomu aadama yi doom ku yërëm bindeef yi te daa dimbale ngir yàlla seen soxla mosu fee ñëw mu réeréy bu faju ko lu soxla réer boo ko waxee dana ko faj lu soxla tuuti tuuti du la ko xeebal nga moom nga am ba wax ko ko bu dikkee boo dikkee loolu dala koy fajal noonu la fi nekkee woon yërëm jaam yi lool yërëmbaar yi nag xàmmee wu ci woon jullit bi ak yéefar bi ak keneen ku mu doon danaa dimbale rek te yàlla tax ndax da jëf ngir yàlla dafa wax ne yaakaar du fi tase loo fi indi fam nag dana ko faj boo woppee soo dikkee mu ñaanal la nga wér soo ñàkkee boo bëggee am soo dikkee mu ñaanal la nga am soo bëggee dara soo même li ci gën a doy waar sax soo jekkee bi àgg nga am loo bëgg te mënoo ko am boo dikkee boo ko bu la ñaanalee nga am ko bu dee ku ñàkk doom bu dee dikk bu ko ñaanalee mu am doom bu dee ku bu dikkee bu la ñaanalee nga wér boo ñàkkee bu la ñaanalee nga am boo dee laajit mu jox la nga am. bàyyiwut seen soxla lu yàlla indi wàcce ci kaw suuf muy soxla doomu aadama rek boo ko indee fi ñoom loo fi indi fam nag dana ko faj. mës toroxal doomu aadama mës ta jànni doomu aadama ku fi mës sa ñëw ak foo mën a jógee ci àdduna boo dikkee daal booy ñibbi da ngay jàpp ne sëñ loo gën ci àdduna lool li ma la koy misaale am na génn góor gu ñuy wax Sërif Thiam sama xaritu bàyyi la woon daan ñëw fii lu baree bari bi sama bàyyi faatoo léegi nag gisatuma ko waaye toll na ay jamono yu bari da ñëw fi mag mu weex tàll ak bijaaw la Sërif Thiam moomee xam nga lan moo ko indi ci yoonu murit daa doonoon ab chauffeur boo xam da doon liggéey ci gouvernement bi ñu jox ko benn oto mu dem Kaolack ba mu demee Kaolack def maison ba bay ñibbisi dikk ba tolloog Fatick am ku ko arrêté mu taxaw dafa bëgg xaalis moom Serif Thiam ne ko man de damaa yor ay bagages yu jëm Ndakaaru te bëggoon boo ma ko mënee indil Ndakaaru loo ma ci fayoo rek ma fay la ko mu ne ko lan la mu ne ko bagages yi pon la Serif Thiam bëgg xaalisam te xamut erreur bi mu nar a def mu d'accord ñu ba ba weesu euh, Mbour ñuy contrôler oto ba gis pon mi mu def lu garaaw loo xam ne yor oto gouvernement rawatina sëf ci ay bagage di ci wut xaalis rawatina sëf ci am pon ci jamono yooyee lu ko gën a garaaw booba ci Sénégal amul gaa yi jàpp ko mu jaaxle booba du mu murit sax ab tijaan la ñu ne ko yow lii foo ko jëlee mu ne leen sëñ Fallou ma ko yónni Sërif Thiam fii ma toog daana fi toog di ko nettali ñu ne ko sëñ Fallou la ko yónni mu ne waaw ñu ne nañ woo sëñ Fallou ko ko xam nee na ñu daal di téléphoné Jurbel boobu téléphone yi da ngay téléphoné ci région bi ñu jox kee jox la kee ba keroog mu egsi ci nga soxla nee na biñ dikkee ba jot sëñ Fallou ci téléphone ci buum gi ne ko noonu kat danoo xaw a jaaxle ndax dafa am nguur su ñuy wax Sërif Thiam dafa yor oto gouvernement bi ñu yónnee woon ko Kaolack bi muy ñibbi si mu sëf pon ba oto bi fees te biñ ko laajee dana yaa moom pon mi sëñ Fallou ne waaye maa ko moom waaye maa moom pon mi indi leen ma ko fii ak nguur si indi leen ma ko. nee na ay gendarme ko escorté moom Serif Thiam ba indi ko fii ak oto bi sa poon mi nee na bi egsee mu ne an an ana ngóor si ñu ne ko mi ngi mu ne toogal fii sama wet mu toog mu ne ana ana bagage yooyee mu yoroon ñu ne ñu ne ko mi ngi ci oto mu ne nañ ko sippi foofu fii nee na ñu wàcce bagage yi mu daal di ne ñëw leen ma ñaanal leen yéen ngeen dem ñooñu ànd ak oto ba dem bi noppee mu ne ko ana ana lii ci jubluwaay mu ne ko man de damaa xam ne képp ku dugg ci sa biir raw na damaa xam ne képp ku la tudd lépp lu mu jàqoon wala ñu nar koo toroxal ci àdduna toroxaa ngi googu suñu boroom dana ko teggi mu ne ko wax nga dëgg kat wax nga dëgg waaye lii bu ëllëgee bu mu la dalati nag del def ak jub te di ko wax ku bëgg ñu bañ laa toroxal da ngay def ak jub te di ko wax bu ëllëgee lii bu mu la dalati daane ko ana ana lii luñ la ci waroon a fay mu ne ko man kay mbàkke luñ ma ci naroon a fay rek bàyyi naa ko mu ne déedéet waaye am am na lu ci war wax ma li ci war rek ma defal la ko mu nakk nakal ba mu yàgg mu tudd ab lim sëñ Fallu lim boobee mu tuddoon Sërif Caam nee na ñaari lim yooyu lañ ko indil jox ko bi mu ko joxee mu ne waaw loolu nañ ko gas suulal ma ko nag te bu ëllëgee bu ko defati te neel ci bu dem ñibbi te bu ko defati Sërif Caam nee na keroog laa tàllal suñ Fallu samay loxo ne ko bis ni ki tey jébbal naa la sama bopp àdduna ak àlaaxira ànd na ma ak Amidun Jóob ak Aliyu Jóob sañ ma sëñ sëñ sëñ ma Yaasin Jóob mu ñëw ci sëñ Fallu ne ko tey day euh, euh, jaaxle nu tax a ñëw mu ne ko ah mu ne ko Aliou Diop mi dafa denc mu ne Aliou yu sëggal Aliou yu sëgg sëñ Fallou dóor loxoom ci gannaaw ne yàlla yow mi am doom te dooyee dooyee ko dara may ko yu mi ko doyee dara daan ko jógal lii rek la def ak moom mu dem tey yu jaboot na moom fi daataan jóge dafa jaboot tubaar fa kàll ñett fa ñetti fan yàlla fas yéene wuute liggéey ma ñëw fekk ko ca kër gi ca ndindi mooy lu mu doon waaye ñëpp liggéey ngay wëndeelu lu ko waral mu ne ko man kenn mbàkkeel ma yor fas suy bañ looloo ma indi mu ne wuma ca mu ne ko bu mag ba Moustapha Ndiaye yore bare ba sëñ Fall xanaa du wi sëñ Muudu Maamun joxe woon mu ne ko waaw waaw mu ne woowu sëñ te bañ dama indi ko ma yor ma dellu ca tool ya ne Moustapha waral fas yi nu wuyu sëñ bi boobu noo ngi noo ngi dindi kii na ko yegg si na jaay min jaay bi tàggi toog sëñ bu sa safóor a ngi toog Modou office bàyyi Moustapha Mbacke mi ngi toog sëñ Daaru seen chef de mi ngi toog soxna Abi Dieng mi sëñ Fallu yoroon muy sama rakk nday nday maam Cheikh Mbay mi ngi indi café gi léegi dégg sëñ bi ne ko yow sëñ bi ne jàkk fa si ne ko yow yaay jël gël sëñ tuwaay xool ni nga toor rek jox pepp jox ngooñ di la teral ngis bis bis bi ñëw nga lànk ci gos toll na yow demal def lañu sant dañ lay toroxal de gosu yow nag du tooñ ba ko toroxal demal def la sant daal daal dama di ci mbagg ni ma jugal ma jug nu dellu ca tool ya ba añ daal caa jot ji ji ji na bërigo dafa mas a am benn bu nekk bu mas a nekkal ba mu naar ba mu nekkee moom mu di ko wéttali ba yàgg gisatu ko ba yàgg mu laaj ko mag ñi mu ko laaj mag ni waaw fu mu dem ñu ne ko ah, moom day wax leen rek wax leen fu mu demoon rek wax leen wax leen fu mu dem rek ñu ne ko moom de dem na daal di koy tudd fa dem mu leen ah ñu ne ko ah, mu ak ñàkk xam bu xaman du ko def de daa xamul ni bu nu demee yemal am ñooy ràngoo xàppi ramm ya di ramm maay seen kilifa. maa leen di wax jaar leen nii def leen nii bu xaman loolu du ko def te loolu moom rek ko sañ wax. fanaan naa tuubaatul ba waxtu fajar sëñ Fallou feeñ ma ma toog fitaatu gi gii sëñ Fallou tiim ma ne Abo Mbacke mii ma am ak say Moustapha Fall ku yëkkati ñaar fukki dërëm teg ci loxol Abo de ñaar fukki mooy seen jéggi siraat ma jóg dégg ñu noddu fajar ma julli ba ma jullee ba noppi ñibbisi si jëm këram bëgg ko ko wax ñu tàggale Idali Ndiaye Touba ko la nekkoon. ci dongee la nekkoon tubaab ak la faatoo ñu tàgg yi delli njaay sëñ bu di ko taxawu ca barab ya ma bëgg ko koo wax mu xat mënumaa àgg ca moom guddi ga ca topp sama doomi nijaay sama doomi nijaay dem ku ñuy ab ku ñuy wax Abdou Saman Njaay sëñ boo ñëw di ko taxawu ca këram ba dem ca këram ma ne ko sëñ bi sëñ bi de damaa feeñ guddi bii nee na ku yëkkati ñaar fukki dem teg sa loxo ñaar fukki mooy sëñ jéggi siraat sama ñaar fukki ngi nii lu Njaay njool teg ca ñaar fukk ko ne ko sëñ bi wax na ngañ lay mii mi ngi mel na ne ma fa sëñ bi ne ah ngañ mën naa yaatu ngañ daal di ko ak mbaxanaam dem ca baas ba kenn jox nañ ko fa junni junni ak ñeent fukki ba léegi tey ñu ngi ko it. Alañ Njaga Fall bu kokki juróom-ñetti kër la amoon juróom-ñaari kër la amoon euh, kokki euh, ak ak benn kër Louga ñu wëlbatiku seppaane da koy jaay ba sisir ko ba taf ko ba jël titre foncier ma ànd ak moom ak góor gu ñuy wax jaajo jom ñëw ci sëñ fal Fallu sëñ fal lu mu wax ko sëñ Fallu ban yendoo ba kon sëñ bi ne ko nja àll ji kaay dellu ne ko kenn du ko jaay de tàllal sa loxo mu tàll loxo mu ñaan ko ne ko demal kenn du ko jaay te alxames lañ ko war a jaay te nun talaata lañ fi ñëw mu ñibbi toog naal bu ñuy wax silwaan dawalee otoom Louga ba digg kokki fekk fa ne ko xaalis yëpp fay naa ko kayitu kër yaa ngi waxtu boo jekkee nga di ma fay ndànk-ndànk ba moom yu mat benn bis tuwaab bi defar jumaa ji yàkkamti xaalis bi fekk bàcc nañu gerte ga ci allié ba àggale mu ne Thierno na ngeen daal di jëri bu subaa te lu ngeen jëri oto bi na ko roñ ba mu dikkee mu ne na Diaw lu doon jëriwu leen ñu ne ko démb ba tey dafa gëlawut mu ne ngelaw dong mu ne waaw mu daal di laaj satala gi daal jàpp bi mu jàppee ba jóg dugg coote bi ne leen léegi ngeen am ngelaw de bi ñu déparé bi ñu daataan ak si Touba ngelaw na ngelaw loo xam ne mara di taali nga xam ne da des ci bëccëg ba rek Thierno Diaw ñoom jëri nañ ci lu mat juróom benn fukki naaf. bi sëñ bi sëñ bi euh, waree ñëw fii Touba Cheikh Moussa dafay jóge dem ñaaxeen ñoom li leen daroo ñoom moo raw téléphone léegi rek nga xam ni sëñ Moussa dafa jékki jekki ne mu ngi dem Njaareem. bu mu dikkee laaj ñu ne sëñ bi ñaari fan gisuñu ko muy dajjulu keese ba fekk ko foofu foofu mu nekk fekk bi di bataaxal wax wax wax nañ ko ni ko war a taxaw taxawee bis boobu rek nettali ma ne ma sëñ bi ci ci guddi guddi googu daal nekk fii ndindi ku ñu wax góor gi daam Ndiaye la la ko wax ni ko eh, bul tëdd tey boo sori de te lu yëngu na nga ko yëgal lu yëngu ndekete boobu sëñ baa ngi war a ñëw njuwaa waaw daam Ndiaye toog fii ci néeg bi ba yàgg rek sànq su ay jabal si oto bu ñëw. Euh, daam jaay ne ko am am na offre bu ñëw léegi Cheikh Moustapha ko yéen mu dikk mu ne ko ñëwlu Cheikh Moustapha fekk fekk boobu sëñ bi ñëw na. Morlo bëkk néeg itam nett na ma fii ci barab bii toog mu nekk nag moom mu ni toog na nag moom ba yàgg mu ne ñàdd ci piliyaan bi ba yàgg mu dellu siwaat ak àll ni sëñ Ousmane Ousmane Boussa mu ne ko Mbacke mu ne ko Ousmane Boussa mu ne ko Mbacke mu ne ko bis ki tey. laay mujjee wax sama borom dara dara dara duutuma ko di sama seen soxla moo may wax loo bëgg kay ma ne ko nangam laa bëgg waaye duutuma ko damaa bëgg nangam loolu moom rek ko sañ. ndax ñi fi ëppoon bi fi bàyyi ko ñëpp ci waa kër gi ñëpp kenn sëmbu ci kër kenn ma sëru ci sax ba kër ndax bi fi jógee rek juróom fukki yi manqué suuti day màgg ci waaye suñ tubaab mi bàyyi rek te suñ tubaab ko bàyyi yàlla koo bàyyi mooy bàyyi yàlla sa bopp rek ndax moom lépp da ko jox subhaanahu wa la kon sant yàlla ci moom lool ba tax na mm, li ñu war ci moom rek mooy jukko ya ak bëgg Sëñ Tuubaa ndax lépp da ko jox Sëñ Tuubaa ñoo xam ne doon du doon du doom ju bëgg a doon bàyyam taali bëgg a seex hmm, na nekk na dox ci biir Sëñ Tuubaa rek lu ñu tudd Sëñ Tuubaa tudd ko ci moom loolu moom kon moom ñu ngi koy rey ci moom rek mooy bëgg sëñ bi rek te yeb bañ ko yebal dara nag waaw. sëñ Fallou daal loolee mu ne woon li fekk yéen a ngi may gis Sëñ Tuubaa ngeen di gis waxtu bu ngeen ma noppee gis ngeen di gis doomi Sëñ Tuubaa loola moo mooy la gën a wér nag ci lépp lépp lépp lépp lépp ñu ngi sant ñëpp ñu ñaan ci barkeem yàlla na nu yàlla dimbale te taxawunu te sàmmunu fadla bi yadillaahi yuutihi man yashaa yàlla moo ko yoral boppam ndey ak baay feete suñu doom sëñ Tuubaa rek ko mën jàpp na jàpp sëñ Tuubaa bu baax jàpp leen ci moom na jàpp ci sëñ Tuubaa bu baax kii ngeen am kenn amu ko kii ngeen am ne kenn amu ko kenn amu ko sëñ bi ne sëñ Tuubaa kenn amu ko da ngay sant bu baax Alaaji Fallu Mbàkke ne sëñ Tuubaa kenn amu ko lu ñun ñëpp am nañ ci maas yi jàpp bu baax waaw